waa ndox mi dafa nangu suñu kër depuis eh, taw bi bi mu wàccee ba léegi li ko gën a waral nag mooy kanaal bi nga xam ne nii moo nekk ci suñu wet dafa doxul ndox mi rëfarlewu dugaat ci suñu kër yi mais bu doon ndoxum taw mi rek mën nañoo bañ a indoone waaye kanaal bi nga xam ne moo nekk ci sunu wet moo ñàkk taxawaay yuñ ci war a taxaw ba mu am sécurité ba su tawee ndox mi du rëfarlewu di dugaat ci kër yi nga xam ne nii ñoo ko wër loolu nag moo waral suñu kër yi suñu néeg yi sunu bagage yi yépp yàq na gisuñu benn taxawaay bu ñu assister lu mel ni maire wala état mu assister ñu taxawuñu ngir jafe-jafe yi ñu nekk te bokk na ci ñoom li ñu ko teg seen ñàkk responsabilité bu ñàkk responsabilité ci taxawaayu askan wi bokk na ci lii tey ndax machine yi nga xam ne ni mooy doxal pompe yi ngir ñu war a évacuer ndox mi dafa doxul ba ndox mi referlé wu station bi fees génn yàq suñu kër yi dugg ci dugg ci néeg yi ba yàq bagage yi loolu nag dem ba léegi ci lañ nekk booba léegi nag ñu ngi ci nekk di def suñu moyen par rapport moyen yoo xam ne ni gisuñ ci benn taxawaayu état at yi yépp dafay am te gisuñu benn taxawaay buñ ci prévoir ngir mu bañ a am loolu nag ñu ngi koy ñaq naqarlu ñu ngi koy ñaawlu di ko wasaare ci àdduna bépp ñu xam ne ni taxawaayu maire gisuñ ko gisuñu taxawaayu état ci suñu wet ci ñi xat-xat ak jafe-jafe yi nga xam ne ci lu ñu nekk te bokk na ci ñoom seen ñàkk responsabilité bu ñàkk responsabilité ngir taxawaay ci askan wi loolu bokk na ci ndox mii dugg suñu kër yi yàq suñu bagage yi daani suñu miir njaboot gi génn nañu amuñu fu ñu toggee amuñu fu ñu euh, demee toilette lépp yàqu na bagage yu bari yàqu na am na ñu bari génn nañ seen i kër seen i kër yàqu na seeni kër daanu na seeni miir daanu loola nag di lu ñu ñaawlu lu ñu naqarlu ngir ñàkk taxawaayu maire rawatina état mi nga xam ne ni moo ko waa ñoom ñëpp. li ñu ñaan nag sëñ bi la ñuy njëkk a ñaan mu dimbale ñu ndax lii an mu jot ñu jigéen ñi ak suñuy doom ak njaboot gu yëpp an mu jot mu dal ñu guddi la ñuy génn deux heures du matin xoolal sama néeg nga ne lañ toj fa lañ jaaree gone yi mag ñi dañ leen a yenu comme li kee wax. ku ci mag dañ lay yenu di la génne loolu boo amul ndimbal nag ci njaboot gu ndaw gi nga yore xam nga ne doo yeewu di tali bagage ak matériel say doom ngay tal bakkane la ñuy rawale démb ba léegi ñoo ngi nii teguñu cin kanaa ko am yërmande tibb jox leen maa ngi nii ndékkal tegagul naanoo ko fi defoo dara si am murit bu nekk fii kon ñoo ngi ñaan sëñ bi nañu jàppale ñun moom la ñuy ñaan na xool li ñuy dund ñu xool ko ci fii nii ñu nekk moom la ñuy ñaan dimbal moom ku mën a yónnee ak yaakaar ko xale góor yi daw nañ lu ne def nañ ko ñoo daan pompe sax mu jigi ndoxi kër yi léegi nag ñun jigéen ñi moom waxuñu ak suñu doom waaye ndimbal lu mën a am rek moom lañ ñaan ñu dimbalee ñu ko suñu kër yi yàqu nañ suñuy bagage loolu waxatuñu ko sax foo lekkee togg sax dalee të ah doy na waar lool ndax kat bassin bii sonal nañu wax dëgg yàlla man lama li ma fàttaliku depuis 2006 ba léegi ñoo ngi inondé ñaari at lañ fi doog inondé wuñu métti na trop waaw na trop ba ma ndax démb gis nga fenêtre be moom laa dajji pour nit ñi mën cee jaar rawale bakkan yi bagage yëpp ñu ci biir waaw ndox mi bari na lool te fi mu toll nii bassin ba léegi solution amul gouverneur bu Diourbel ñëw na fi démb waxtaan laaj nañu waxtaan nañu moom waaye nag nañu daan def lañu ba ñu def ñu ko waaw bu ñu waaw bu ñu ñëwee dañuy wax ak ñun waaw ñu recharger kër yi dem boobu la ñu gëj a dégg bassin bi génnaat te ñu ñaan Touba ca kanam ngir yàlla nañu dimbali bu dee defal suñ Touba rek moo leen ñor branchement yi nañ ko arrêté. nañ arrêté branchement assainissement yi ndax ba bassin Kër Niang bi attunu ndox mi ndoxum dëkk bépp ndox mi fi daal ñëw rek attunu ko waxuma la ndox mi waaw ñañ xalifa général di murid nag la ñuy ñaan amul kenn ku ñaan moom mi nga xam ne nii moo fi nekkal Serigne Touba moom la mu dimbali ndax lii moo ci man dara ndax xam nga ne bâtiment bee daanu sa waa kër yi amuñu fu ñu ne sa dund yàqu sa lépp yàqu metti na trop sama waa kër yi fi mu doon maa ngi leen yóbbu ba Touba Njaareem ngir rawale ji leen xale yi ñëpp metti na doy na waar ñi ma dëkkal ñëpp gis nga niñ mel ñëpp dañoo inondé ñëpp dañoo génn seen kër métti na trop trop trop trop doy na waar sonn nañ lool sonn nañ wax dëgg yàlla sonn nañ joytu nañ ko fu ne joytu nañ ko fu ne dem nañ ba tubaat Tiib fekk fa mun Muntaxa waxoon nañ ko ko daaw jeeg ba nga xam ne inkaar yi na waaw sonn nañ lool sonn nañ ba ca kanam yàlla metti na trop trop trop trop trop waaw amul kenn heureusement nag kenn ko fi gaañu ndax ñun bi ñu commencé gis ndox mi ñëw rek commencé ñoo ngett rek lañ bëtt fenêtre yi ñii fu waaye mën a nga jaar fa ñu génn waaw rawale suñuy bakkan fi bagage yi inondation nag ndox mi day génn bassin yi nañ bassin bi nañu ci dimbali danañ ko defar de grand waaye nag xam nga li ñu xaar mooy ay bakkan ci te te te yàlla baax waaye fii dafi mabbu ci ay bâtiment dem kër xam nu toll suñu borom a bëri sutura bañu ba dee ci ndox mi ñuy déeru dimbali nañu dimbali yuuxu fañ la walloo yuuxu nañ ba sonn rajo télévision ku ne ñëw na fi waaye sonn nañ lool nañu dimbali ngir yàlla te yàlla tax ñi ngi ñaan sëñ Muntaxa ñi ngi koy ñaanal bu baax mu am gudd fan ak wér waaye nañu dimbali ci lii ndax moom rek moo ci man dara